Inna Sène jërëjëf ñu ñu ngi sant bu baax ci question bi nga xam ne laaj nga nu ko ñu fas yéene tontu mooy li nga xamante ni moom moo waral lii di bis bi te 24 décembre nekkoon ci jamono joo xam ne ak anam yoo xam ne saay bu masaa jot li ëpp ci ndaw ñi ak mag ñi dañ koy dund ci leneen loo xamante ni du daje ngërëmal yàlla sëriñ bi ñëwoon ci jamono joo xam ne ju xat la muy Cheikh Ibrahima Fall mii ñu feggool di doomi sëriñ Mouhamadou Fall Ndiand yàlla suñu borom def bi mu ñëwee mu xool xam ne loolu ëllëg. ay duma ak loraange rek la ñuy jural mu bëgg a dimbali ñëw te xam ne am réew mënta baax te defarul ndaw yi ëllëg yi ko war a yor sëñ bi taxaw taxawaay boo xam ne su 24 décembre jotee mu dajale fii xale yi daal di def kéemtalaay kàttanam xale yi fekk ko fi mu ànd ak ñoom di ca ñoq-ñoqi di ñoq-ñoqi ba yàlla sama borom def tey boo fi ñëwee tey waxuma laa cant waaye comme ni ma leen ko waxee mbir mi ak màggal la sëriñ Ibrahima di jëmm joo xamante ni nii itam 24 euh, ci jamono ji ñu ko xamoon ak anam yi ñu ko xamoon yàlla suñu borom dimbali noonu daal ba ñun suñuy xol li ci nekk tey décembre jotati lépp lu nit di xalaat wala fu nit bëgg a dem sa xel du nekk ci lenn lul jëm kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ko ci sant bu baax nag di ko ci gërëm soo gisee mbooloo mi li fi jot a jaar ak li fi nekk lépp nga xam ne tey keneen ku fi woote woon ci koñ bi leneen lu dëppoo wut ak bisub Cheikh Ibrahima Fall bii moom jàkk jàppal ne defet ngay am waaye da ngay échec waaye doo ci am victoire loolu ak cant la itam ñu sant ko ko bu baax a baax mu nekk tam nit koo xam ne ku jàmbaare la koo xamante ni yàlla dimbali na ko ndax euh, ak njàmbaaram ci wàllu jàng ak xam-xam bi mu waree jàngi suñu borom def na moom jàngi na waajuram yóbbu woon na ko mu jàngi bi mu waree bi mu jugee ci daara ja jaar na fu baree bari ci dem na sax ci réewi naar yi ak fu baree bari waaye bi mu dellusee itam suñ borom dimbale ko ci ak taalibe mu sàmm ko ba téye ko bu ñu xoolee Cheikh Ibrahima Fall nit la koo xamante ni nii woyof gi foo ko natt romb na foofu Cheikh Ibrahima Fall bu ñu xoolee ci ak mbaaxam foo ko natt itam romb na foofu nit la koo xamante ni ci avant ñuy ñuy questionné duñu laaj sax mi ngi naan dag meen maa bëgg def ab sëriñ te duma ab sëriñ bi fum tollu ak dayo ji fum yobbu rek njabot gi ngim andal ñoko fa yobbu waye mom du du du du bëgg-bëggam serigne Ibrahima la gis ko xamne dama mësa and ak mom bis mu jekki jekki am ku dajje ak mom daal di koy duggal loxam ci posam genn addi yi daal di ko koy nuyo mu daal ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu len di defati li ndax su ngeen koy def bu ngeen demee be bis ñew ngeen war ma jox te amu leen lu ngeen ma jox dina bu ko roogee sen gàcce di ngeen ko am te man sama yaakaar dina tass su ngeen amé de len ñew su ngeen amul tam de len ñew ab deureum du dara jëmmi doomu aadama ji la Saliou Mbacke waxoon moo am jëmmi doomu adama comme doyul dara doy kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall mi daal mooy Cheikh Ibrahima xam ne moom moo di koo xamante itam bu ñu xoolee ci wàllu xam-xam jàngal nañu baree baree baree baree baree xam naa sax loolu bëgguma ci woon a euh, a dugg waaye daal woyof gi foo ko nat gis nga même bu ñu xoolee sax ci jëmmi koo xamante ne daa génn àdduna faatu maanaam sëñ Ibrahima dayo bi man dama dugg ak moom ci biir morgo ànd moom ba tàyyi waaye yërmande ji mi koy jox ak it respect bi mu koy jox loolu yéeme na ba daanaka xam ngeen ni nit bu génnee àdduna buñ ko suturaalee ba noppi bañ na ko ba maanaam moom bu koy defar bëtam bi sax mën naa waat ci yàlla ne daanaka du tege ci moom dina fexe ba lu muy def da koy làmpatu di ko def te itam am na noonu soo ko di defee bu ko doyul dana doxe neneen nu bokkut nan day mel ne kuy la koo xam ne day jàng ci yow fekk na jubbanti na la dimbali la te yow doo yëg ne dimbali na te doo am lenn lu la naqari jëmm daal xam ne yàlla nu ko yàlla fayal te itam yal na yàlla sama borom gën a guddal ak fanam tey jii ku ñëw fii fekk ko fi xam ne jëmm ju baax la bu ñu xoolee itam ci wàllu ñim jàngal ku mel ni oustaz Ahma Kan ku mel ni oustaz Mortala Fall ku mel ni ba ci Mbàkke Mbàkke yi sax xam nga ci lu bëree bëri ku mel ni ay ñoom sëñ Molo Aysa Mbàkke maa ngi daan ñu ci bëri dégg naa kenn ku ci nekk sëriñ bi am na fu mu la jaarale jàngal la yar la teg le ci aw yoon ginnaaw bu yàlla sama borom defee mu amoon ak jaxasoo gu rëy ak njabootu ak ñi nga xam ne ñoom moo ñooy waa kër sëñ ma dem di sëriñ Abdourahim dem nettali sax ne euh, bëri woon na léeg-léeg bu ñuy def dara bu xale yi di def dara ci kër gi bu ñu demee ba bëgg leen a jubbanti sëriñ bi da koy woone ko li xale yi di def muy football bi neexul sëriñ bi waaye sëñ Ibrahima dégg naa buñ ko mosaa euh, sëñ Abdou Rahim dem joxe mosee jox ndigal day woo mbàkke mbàkke yëpp dajale leen ba ci suuf waaye ci teggin ya ak yar bu mot sëkk bi day daal di jël addiya kenn ku ci nekk daal di la koy jox daal ne yéen nag yéen lii may bëgg a wax yéen ñi nga xam ne ay mbàkke mbàkke ngeen bokku leen ci ndax euh, yéen loolu du ngeen ko def waaye football bi nga xamante ni ñii dañ koy def neexul sëriñ neexul sëñ bi bàyyi leen ko te xam mën naa am sax mbàkke mbàkke ñoo jiite woon loola waaye kenn ku ci nekk dina ca gis boppam ba bu ëllëgee mën naa am loolu du ko defaat bu ko defee itam programme bi nga xamante ni mooy 24 décembre tax ñoo daje fi ndax li ñu sant mooy rek ñu tënk waxtaan wi waaye programme la daal boo xam ne nekkatul sax benn benn cant wala benn màggal maanaam ak màggal la ak màggal ndax màggal boo xoolee le 18 ak le serigne bi ak it eh, ki digganteem ak ñi nga xamanteni surtout ku melni serigne sëriñ Abdourahim da wala serigne salim mbake rahmatullahi alayhi yalla yalla yàlla dolli ay leram ak eh, ñoo ñepp lolu tam mu nekk waxtaan wo xamanteni waan mu nonam lu amon lu amon solo la le 22 bo fi teewon dembu fi ci bass bi xol journée khassida la won bo xamne bu am solo la ñu dajar darajaale woon daaray serigne mo Cheikh Mahamadul muntaka mbake ji nekk ci quartier mam Cheikh Anta mbake njabot gi yëpp ànd woon ko teew ko waye li gën a ci li serigne bi di def moy lu njabot gi tambali diko def mom du tok ci biir di leen déglu day ñew and ak ñom tok ci biir jotaay ba ba waxtu wun jeexale xale mu daal di jóg du gar ci biir te it xam nga ne wax dëgg yàlla yal na yàlla guddal aw fanam waaye at yaa ngi sori waaye nag du tee njàmbaar gam amun démb ak bortu démb xol du ko mën a muñ ndax maa xol du ko muñ lu muy bëgg a def sax des mu toog ba mu yàgg ñu koy sant dara waaye day xeex ñun bërki démb rek génn fi jàpp ci weñ yi baas loolu lu yéeme la nag di baas naan euh, ndax euh, ak lu ko Serigne Saliou waxoon ne Serigne Ibrahima Fall ku ko liggéeyal liggéeyal sama bopp ci sama bopp loolu tax mu ànd am solo la bi defee journée xasida gi ba jeexit tey xam ngeen ni boo fi bu ngeen fi ñëwoon fekk fi consultation gratuite parce que ñoom jàpp nañ sëriñ si it war nañ euh, bi ñu créé yi ñu jox la ko bi def na ko tey buñ bu ñu xëyee dinañ fi amal njàngum alxuraan ci njiital sëriñ Abdoulahat Cissé mu sëriñ Mor Mbaye Cissé yal na yàlla dolli ay leeram suñ noppee itam dinañ amal ay ziar ba une jot bu une jotee itam eh, xam ngeen ni ci la ñuy eh, daal di taxaw daal di pause buñ buñ taxawee daal joxe xéwal berndeel gan ñi nga xamante ay dëkk lan ak kenn ku ci nekk foo jig foo mënoon di jógee rek saafonte ak ñoom loolu tam bu soobee sëñ Tuubaa loolu danañ ko fi buñ àggee ba eh, li nga xam ne ginnaaw timis jot na nag dinañ amal benn cérémonie officielle boo xam ne dañ ko def ci teewaayu ki nga bi ak mbooleem autorités yi nga xam ne ñoom la fas yéene ak kilifa diine yi nga xam ne tam ñoom ñoo nekk ci dëkk bi incha allahu rabi dinañ teewe loolu guddi gi ñu amal fi conférence ak njaamu xasida buñ ci noppee nag ki nga ne ko ba bët set lii daal la ci Serigne bi bëggoon def ci xolu jaam ñi kenn ab xolam dootul dëtmal jëm ci ay 24 décembre di baali wala muy ne ci ay soirée muy ne ci loo xam ne yàlla gërëmu ko Serigne ci ak euh, euh, lëndëm te dugal nu ci ak leer euh, kon loolu moo nekk loo xamante ni loo am loo am solo la te incha allah rabi danañ ko fee def xam naa daal comme ni nga ko waxee bu subaa incha allah danañ ko gën a yaatal fi ñoom ñàkkul ñoo ñooñ la sëriñ bi defar dinañ mën a waxtaane ci sëriñ bi lu baree bare sëñ Baara nag ñu leen di sant bu baax baax di leen gërëm di sant ci taxawaay bi ak teewaay bi tey wax ni mbooleem liñ fi wax lépp lépp loo xamante ni jub na ci na ngeen xam ne ci mbaaxu Cheikh Ibrahima Fall mii ñu dendal la waaye su sa wetu sëriñ da ngay lott ci yëkkati sa kàddu di sant di gërëm waa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu